السلام عليكم ورحمة الله وابيدو وابي قم غين دي كيرو غراو لا وقت لي دفا بوكو تي دأبو وهابيي أليس خروج الحسين على يزيد الحسين رضي الله عنه على يزيد دليلا على عدم شرعية الحاكم المتغلب بقهره وتزويره لا طبعا يزيد لم يكن قاهرا ولا مزورا معلش يعني يزيد بن معاوية رجل صالح ليس رجلا فاسدا ولكن تولى بطريقة حولت الأمور في دولة الإسلام من خلافة إلى ملك وبايعه كثير من الصحابة في حياة أبيه كعبد الله بن عمر وغيره ووفوا بهذه البيعة واعتبروها ملزمة ورأوا أن الخروج عليه بتولية إمام آخر في وجوده هذا هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني أنا أطالب بتغيير الإمام الموجود الشرعية هي هي لكن أقول أنا أريد هذا الحاكم أن يترك منصبه وأن يتولى غيره تغيير موظف بموظف والمنصب له حرمته وتوقيره هو هو الرئيس يوقر يوقر باعتباره رئيسا لا يوقر باعتباره شخصا لا لا باعتباره زيدا او عبيدا انما باعتبار هذا المنصب الذي ينبغي ان يعظمه الجميع فالاحترام هنا والتوقير للشرعيه لا للشخصيه وبالتالي آه، خروج الحسين رضي الله عنه باعتباره اماما اخر في وجود خليفة للمسلمين هذا خروج محرم وليس هل كان الحسين رضي الله عنه يقول بحرمة هذا؟ لا طبعا ما كان يقول بحرمة هذا هل كان يكفر يزيد يزيد بن معاوية ما كان يكفر يزيد فكانت مسألة الخروج على الإمام الظالم خلافية بين الصحابة بدليل خروج عبد الله بن الزبير على بني أمية وخروج الحسين بن علي رضي الله عنهما على بني أمية أيضا وبالتالي المسألة الخلافية كما قرأنا في الطحاوية الآن لا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا كلام هذا ما كتب العقيدة كلها كلها متطابقة على هذا الأمر وينقلونه إجماعا عن أهل السنة والجماعة ولا لا, لا أقول عن المعتزلة ولا عن الخوارج لا ليس إجماع المسلمين إنما إجماع أهل السنة والجماعة هل طيب واحد يقول لي طب بعض فقهاء أهل السنة قالوا كلاما يشبه كلام المعتزلة قل تأثروا ببدعهم يعني نحن لا نبدعهم لكن نقول هي بدعة معتزلية هي بدعة خارجية فهو وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه هو من أهل السنة وقوله في هذه المسألة قول المعتزلة هو من أهل السنة وقوله في هذه المسألة قول الخوارج ñoom dafa nekk ci dafa bokk ci seeni yi ñu leen di xàmmee foo leen fekk dañuy jéem a tanxiis eh, ci anam goo xamante ni mu mën ak anam goo xamante ni eh, gu xereñ la tanxiis eh, yonente bi ak tanxiis ahlu bayt rasul kii li wax di jéem a leen ni génn gi xuseynu génnoon wala xeex yi amoon diggëm ak yésiit loolu muharram la jël xaraam gi féetale ko xusayni di jéem a layal rey gi ñu reyoon xusayni euh, ak xasan sax ndax ñoom ñëpp ñoo leen rey euh, am nga yu ne ñoo leen rey loolu defe naa lu ñaaw la euh, man daal ko mënuma comprendre ñii ban problème lan am ak yonente bi laay wax parce que bëri na ci seeni ñoom ama yuun yi ñi leen topp tey ñu ci bëri amee fikra amawiya di ay wahabiya yoon foo leen fekk dañuy tan xiif ah eh, waa kër yoon tamit benn man xaba buñ fekk ñoom ñu am ko ñoom waa waa kër yonante bi benn danañ danañ xool man xaba bi daraja bi ñu jéem koo israak ak ñeneen wane ne ñeneen am nañ ko suñ ko mënut man xaba bi ñu jéem koo tafriix maanaam vide ko wane ni loolu man xaba loolu ñu ku jàng téere yi xam nga ñi surtout bëri nañu koy def comme kalaasu ko ibnu taymiya ak ñeneen ak ñeneen euh, ba ci ñoom ñi ñu ci bëri ci wahabiya yi wala sax suñ ko mënut ñu jéem ko tadaifal loolu danañ koy def mais kii li wax moom ci vidéo bi wane ni Xuseyni euh, dafa defoon lu araam ci génn gi mu génnoon kii dégg ngeen sax may wax aray si waqar te itam loolu day wane ni ñoom seen mën xëj ci wàllu nguur boo doonee njiit del naan sàngara del rey del def lu bon waaye des laa war a wekk mais loolu ku ko jàngale quand même euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi yu waa groupe bi yëpp nuyu Cheikhouna na bu baax Eh, cheikhu naa gisi nga eh, sawaa ji xaw ma eh, xaw ma nga ne oustaz xaadi fasikala xaw ma wax dëgg yàlla kii su fekkee ne dégg na arabu nag kon ragalul yàlla su fekkee ne dégg na arab wax ragalul yàlla de te yow mi nga xam ne tamit yaa ngi partagé ojo bii nii ak unwaanu bi nii su fekkee ne eh, dégg nga waa lu mu wax nga ànd ak sa usaas xaadi bii xam nga ne ragaloo leen yàlla yéen ñaar yëpp parce que waa li xaadi wax ak waa lu mu wax bokkuñu sax d'abord euh, waa ji dafa ne seen unwaan bi dangeen ngeen ne Eh, ak bañal gi ñu bañ ahlul bayt mooy waxaabi li ñu bañ ahlul bayt eh, yaakaar naa ne boroom xel bu nekk eh, du jëli benn wax sax benn individuel lu muy wax nga ñëw boole kuréel bi yëpp yaakaar naa loolu du màndute fekkee benn murid yi dafa benn mbir nga ñëw wax ne muridi yi lii lañuy ñuy def wala fekke benn muridi wax lu mu wax nga jàpp ne kon muridi yëpp lii la ñuy wax kon loolu du màndute su fekkee ne xam nga waa ji dangay wax ne dëgg leen wa diw lu mu wax yaakaar naa loolu mooy màndu soo xamul tur bi nga ne déggul leen diw lu mu wax parce que amul kenn ci ahlu sunna seen pas-pas buy wax ne Xuseyni dañ ko rey rey buñ ko rey lu baax la loolu amu fenn mais lan moo tax ngeen jël seen unwaan yu leen neex di ko teg ci deret ñi nga xam ne seen yoon nekku ci mbir yooyu noonu wax dëgg yàlla loolu du màndu te jullit dafa war a màndu jullit dafa war a màndu waa ji soo dégguloo sax ay waxam waxul ne lu xuseeni def muharram la déedéet mu ne Yezid nguuram defa sax parce que ay saxaaba sax dañ ko dañu jaayante ak moom donc mu nekk imam boo xam ne lu sax la mu ne xuruju xuseeni bi atima bi atibaari su fekkee ne xus eh, suñu jàppee génne Hussein pour mu nekk beneen imaam nee na loolu muharram la il faut nga comprendre la la que imaam bi xayyun mu fi mais su fekkee ne nekkul imaam bi atibaari imaam kon naka ngeen jële waxu jàmbur di ko wëlbati tafsir lu leen neex beneen bi moom si boppam si waxam waa ji nga xam ne mooy borom vidéo bi dafa ne masalatul xuruj ala wulaatil jaar ak njiit yi nga xam ne eh, eh, ñu wala njiiti yu bon nee na loolu masala xilaafiya la ci saxaaba yi mu daal di indi ñaari misaal xuseeni lu mu def ak abdullah bun zubair lu mu def radiyallahu anhuma kon su fekkee ne moom dafa bañ ahalul bay est-ce que dina wax wax jooju ba mu itibaar def masala Hussein lu mu Hussein lu mu def mu def ko léegi kon mbiri moom noonu masala xilaafiya la si sa si jamono saxaaba yi kon sa waa ji nag ragalul yàlla nag ak yow sa bopp ragalu yàlla parce que su ngeen ragalu yàlla munoo leen jëw jël di seen def seen unwaan di ko def ak loo xam ne madmunu bi àndul ak li ngeen di wax waa ji muy wax tamit mu ne lépp lu ngëneel amu ñee ahlu bayt dañ koy dañ koy wutali ñeneen yi loolu fen la waxul dëgg loolu man maa ko wax ne waxul dëgg mënul ma indi benn xadis boo xam ne fu yonenti waxee ne ah man kaana wali eh, man kaana man kuntu mawla fa aliyu mawla est-ce que ngeneel boobu dañ kaa wutal keneen na ma indi benn xadis boo xam ne yonent alayhi salaam ba muy waxee ne xasan sayidi la est-ce que ñoom wutal nañ keneen si beneen xadis boo ñu ne diw sayidi la na ma indi benn xadis fu yonent alayhi salaatu la wax wax ne eh, Fatima euh, bidaatu minni ah est-ce que wutal nañ keneen koo xam ne saxaaba ku dul boobu wax ji. na ma indil benn xadis fu yonent alayhi salaam muy wax ne Hussein ak Hassan saydu ahli saba shabaab aljanna la est wutal nañu keneen koo xam ne moom mooy moom boobu noonu kon am na loo xam ne jullit da ko war a bañ jullit dafa ko war a bañ yàlla subhaana taala dafa ne innama yaftari alkadiba alladina laa yuminuuna bi ayatillah nee na ñi nga xam ne ñoo gémulu yàlla ñoom ñooy sosal ay fenn di ko teg ak deret nit ñi kan moo waxal waa ji na ma indi benn ngeneel boo xam ne dañ kaas yonent da ko wax si ay ay ay waa kër yonent ah alayhi salaatu wasalaam fekkee ñu ñoom tamit ñu wutal même boobu noonu ci keneen si beneen saxaaba na ma ko indi maa koy xaar su fekkee mënul indi nag xamal ne moom si ay fenkat la bokk parce que am na mbir yoo xam ne nit yi waroo ko wax te su ko waxee tamit da ngeen di war a taxaw si kanam su fekkee ne munul indi benn firinde si lu muy wax moom kay moo bañ asxaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam yonente alayhi salaatu ay saxaaba ñépp am ngeneel amul kenn ku nekk foofu noo ko koo xam ne amul benn ngeneel mais dañaa oppalante liy musiba wutal nit ngeneel boo xam ne saxul loolu nun duñ ci ànd ak fenn mais bépp ngeneel boo xam ne dañ kaa saxal si ahalu bayti dañ koy fekkee ñu koy saxal da ngay fekkee ñu koy saxal suñu téere yi tey ban ban ngeneel la ban ngeneel la yonenti wax si ahli bayti te doo ko fekkee suñu téere yi mu nekk téere ahlu sunna wal jamaa bépp te bépp ngeneel bi ngeen di wax fii yëpp tey ahlu sunna ñoo ko naxal naqal te ñan ñoko naxal moy sahaba yi radiyallahu anhum kon amna mbir yo xamne yoy yëfi nafiq la te lolu baxul man sen mbir yu bare duma ko déglu parce que soko deglu sa xol moy jeex do fekke foofu xam-xam te ay fenn kesse kesse kesse nga koy fek modane amna ne am yu bare duma ko déglu mais comme bi ni defa defa defa ki trop mané xaral mëna déglu vidéo bi te lima fekke ces vidéo ak mom lu mu wax yépp wouté nañ trop ça ko dire que ñii ragaluñu yàlla ragaluñu yàlla li ñuy wax mais ragaluñu yàlla tamit si seen deret jullit moromu jullit yi loolu du lu baax nit dangay wax dëgg wala nga noppi man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falikul xayran aw lesum su fekkee ne mënoo loolu ay fenn rek di naqale di wax lu dul dëgg di tuumal ay nit loo xam ne mënoo indi fi benn firinde waa ji maa koy xaar mu indil ma yi nga xam ne loolu laa ko laaj mu indil ma Eh, eh, eh, dalil yooyu noonu bi nga xam ne dañ kaa wutal si yeneen saxaaba yi parce que moom moo ne bépp ngeneel bi nga xam ne ahlu bayt am nañ ko dañ kaa wutale ñeneen yi wala ñu changé ko maa koy xaar si loolu wallahu yahdikum jamian gis nga nit su fekkee ne yaa ngi wax boroom xel bu nekk su la dégguloo rek dina xam ne ndax kii wax ni waxkati dégg la wala fenkat la Eh, même su fekkee ne xamul dara dara si li ngay wax mais sa waxini sax da koy xamal ne yow li ngay wax dëgg la walla du dëgg waa ji ojoom bi nga xam ne moom laa tee ni sama loxo am na wax yu muy wax si dafa doy waar lu tax mu doy waar parce que dara du si dégg mais moom si boppam xam na ne lu muy wax sax xamu si dara daa dëgëre fit rek ak mbañal bi nga xam ne moom la bañee ahlu sunna eh, moo tax ne muy dëgëre fit di wax loo xam ne am si benn xam-xam d'abord mu ne eh, muy tuumale arabi saudi nee na dañaa génne si xilaafa al waxu jooju du dëkk képp ku xam arab eh, saudia fu ñuy soqeeku mooy euh, Malik Muhammad ibnu Saoud fu ñu dekkoon ci Najd dawlatu osmania amul fu woon kàddu ñoom seen bopp ay ay ay ay buur yi sew ñoo foon nekkoon kenn ku ne nga glissé gox bi nga nekk mais kantaa di dañaa génne si euh, dawla islaamiya loolu du dëgg wax boobu noonu amul fenn su fekkee ne weddi na ma na ma indi eh, rapport bi nga xam ne moom lay wax ak téere bi nga xam ne foofu lay jëlee waxam dine ne waa Najdi dafa nekkoon ci contrôle dawla Ousmania maa ngi koy xaar su fekkee ne xamul sama numéro jox leen ko sama numéro mu jokkoo ak man mu indil ma firinde buy wan ne ne Eh, najd jamono boobu bi nga xam ne foofu la Muhammad ibn Abdul bu nekkoon ak ab ak al Saoud ba ñuy jokkalante jamono boobu dëkk boobu noonu dafa amoon contrôle eh, dawlat Osmania maa ngi koy xaar si côté boobu beneen bi nga xam ne buy wenn ne waa ji xamul dara si lu muy wax muy wax ne Abdul Wahab moo ànd ak al Saoud. xewoon naa sabuqu lisaani la suñu ko kii ni mais loolu yëpp day indi firinde ne moom mokkalu li muy wax parce que du Abdul Wahab Muhammad ibn Abdul Wahab la loolu euh, naa ko jàngal si loolu beneen bi mu ne euh, renseignement Biritaani dañaa amoon taasir si euh, dawla Saudiya léegi maa ngi koy xaar tamit mu indil ma firinde si loolu mu indil ma téere boo xam ne. mooy wax loolu mu nekk loo xam ne lu weer la ma xam mu xam borom téere bi ak borom téere bi fan la juddoo ak kañ lañ defaree téere bi ak kañ lañ ko defar maa ngi koy xaar si loolu tamit su fekkee ne mun ko indi xamal ne kon lu mu wax du dëgg e, beneen bi nga xam ne euh, moom laa bëggoon noo leeral encore te loolu lu doy waar la moom defa ne Abdul Wahab moom moo ànd ak Al Saoud pour ñu xeex euh, ñoom ñu jàpp leen ay xawana lañu pour ñu daanal euh, état islamique te moom mu ngi wax ne loolu dafa am 1919 te 1919 daa fekkee ne Mouhamed Ibn Abdul Wahab génne àdduna kon da ngay gis ne ñii dañuy wax rek pour tuumal mais waxuñu ci xam-xam waxuñu ci xam parce que ki nga xam ne moom ay 1800 et quelque la génne àdduna. nga ñëw si benn événement bu xew 1919 nga bugg ko tuumal encore nga ne moom moo ànd ak ñe pour def xaw na pour ànd ak yahudi yi loolu da ngay gis ne loolu du màndute mbokk yi il faut ñu ragal yàlla des fois man damay déglu damay jàpp ne xanaa ñii xamuñu ne bis pencu am na yawma yaqumu naasu li rabbil alamin dafa mel ne ñu gëmuñu loolu am ko parce que algaayatu baradu wasila indahum li ñu bëggu yëgalee lu ñu gis rek du ñu xool ne ndax loolu dëgg la wala du dëgg l'essentiel ñoom ñu am ojo yi ñu muy partagé rek mbokk yi nañu ragal yàlla ñu xam ñu xam li ñuy wax lépp ñu xam tamit lépp lu ñuy wax tey ci àdduna tey ëllëg dinañ ko di dinañ ñu ko laaj kon loolu dafa war a nekk ci xam-xam nit boroom xel du wax loo xam ne leeru ko moo tax ne yàlla subhaanahu taala dafa ne faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambek boroom xam-xam foofu la ñuy tibb ne ñu ne kon al ilmu qabla al qawli wal amal nit yi bala ngay jëf wala ngay wax il faut nga xam soo demee si sahil buxaari da ngay fekk fa baabu al qawl baabu al ilmu qabla al qawli wal amal kon loolu moo lu wér nit loo xamul bul si wax yow yaa ngi tuumal Muhammad ibn Abdul Wahab nga ñëw di waxaat encore mbir moom dafa xew si 1919 kon yow xamoo dara si taarix xamoo dara si taarix kon soo xamul noppil wala taqif ma laysa laka bihi ilmun loolu la yàlla wax kon nañu moytu mbokk yi wallahu almustaan